ginnaaw bu ma sant yàlla julli si bi sant may wax wa in yakaadu lazina kafaroo la yaslixuunaka bi absaarihim lama samihu zikra wa yaquluuna innahu la majnunun wa ma huwa ila zikru lil alamin ñu profité wax tuuti ci kàllaamaay kocc ndax amaana am nañu nekk ci Sénégal te maanaam nasaraan bi ne leen xaw a të ñu ci jéggal bu baax ci jiital bi ñu ko jiital di ci tuub bu baax képp koo xam ne xaw na la def ay jafe-jafe lañu doon wax rek ci kàllaamay nasaraan lañuy jéem a tënk ci Kocc d'abord dañuy am kàdduy cant ak ngërëm cant gi nag dañu koy dooree fa nga xamante ni fa laa dëkk muy njéefun paal à travers blog des amis bi nga xamante ay mag ay rakk ay kilifa ñoo ko taxawal ngir soutenir Assane Gueye ca la mu nekk te jàpp na ne loolu mën na amal njariñ Jëfun Paal mën na amal njariñ tuubaatul walla boog mën na amal njariñ Sénégal ma leen wax ni leen seen présence tey fii kawe na sama njort lool yaakaar bi ngeen am ci man ba mu jaral leen loolu yàlla na ko yàlla xam te yàlla bu yaakaar tas naka noonu laay berale cant ak gërëm tuubaatul bi nga xamante ni foofu laa bokk commune bu tuubaatul ak li ko wër yëpp di wax ni sama xol day tooy parfois depuis trois jours yi tellement que dangay yaakaar ne nit ñi xamuñu li nga nekk sax waaye boo yëngatoo rek nga xam ne tuubaatul lu dul solidarité xamuñu ko kon ni maa ngis gis par ñi manifesté wu ne dañoo bégg parce que kañ naan le plus jeune leader du Sénégal doomu tuubaatul la ma leen wax nag ne fierté bi ngeen am ci man bay manifesté loolu fierté bi ma am ci yéen moo ko ëpp fuuf ngir Touba Toul wala boog ngir Sénégal waaye nag damay beral cant liñ naan ku jig njaaga ñooñu ñooy njaaga ñooy waa mouvement doon sa réew ñu nekk des leaders xam nga nu sommes le premier mouvement proposé de leaders ñu nekk ñoo xamante ni vraiment dignité bi ñu ma wan ma wan leen ko ñu ànd ci depuis boobu ba tey nga xam ne lu ne gis nañ ko gis nañ tentative bu ne waaye courage xam na ay leader lañ nangu ci ànd ak man dëgg la nag mësuma def lu ñoom waaye mësuma dugg loo xamante ni ñoom dugguñu ca ba comme ni ko président waxee sànq keroog bi ñu defee mobilisation ñëw gis ak président Abdoulaye docteur Abdoulaye Niang vraiment bu ñu ñibbee aussi kàddu yëpp benn la Assane nañu ànd woon démb ak tey tey gis nañ ne proposition yu nekk am na fi ku nekk woon na la fi te jaayoo sa ngor kon tey boo choisir docteur dañuy xam ne c'est le bon choix te it duñ ne la demal ñoo ngi ñëw nañu ànd la ñuy wax waaye bis boo fi def dofloo ba ne da ngay tiit wala da ragal ñun dañ lay école jàll kàddu googu nag fois su ma tëddee day nekk sama xel ndax dafa may fàttali keroog xare ba Badar bi yonent bi euh, nga xam ne dañu doon bi ñu dem di tafee ji foofu dañu jëri dem pour seen i marchandise ñu dem yëfar ne leen xare rek moo fi sës yonente bi ci gaaw ci ci ni mu gaaw ak li mu xat-xat mu def fa assemblée daal ni muhaajiruun yi ak waa lansaar bu ñuy ñëw fii jël suñu marchandise moo ñu indi woon te ñii nag nee nañ xeex moo ci des lan ngeen ci xam sidna Ababacar moo njëkk a yëkkati loxoom ne ko ñun duñ def la nit yonent yàlla Muusaa yi defoon ndax boo demee ci alxuraan yàlla ma ngay wax ne nit yonent yàlla Moussa yi dañ ne woon Moussa ko anta wa rabbuka fa xaadilaa innaa xaaxunaa xaaxidu maanaam dañ ne demal nga xare yow ak sa boroom waaye ñun dañuy toog fii xaar la kon à chaque fois cadre yi moom waa mouvement doon sa réew dëkkal di ma ko waxaat ma ko à chaque fois damay fàttali loolu ma leen wax ne leen gor laa te gor kenn du ko jëm naa ni la Serigne Saliou Mbacke waxoon rek man ak yéen bu ma leen jiitoo dinaa taxaw xaar waaye bu ngeen ma jiitoo sax bëgguma ngeen xaar ma man maay waaxu dab leen ndax jiñ ngeen ma ngor googu te di ngeen xam ne ngor piir la di wax nag euh, fi ñu jaar ba agsi fii lépp engagement la ginnaaw ndimbalu yàlla ak suñu ñaani ñaani waajur may profité di sant kilifa gi fi teew maa ngi lu baax ci kàddu gi ma jël muy kaw ci sa kaw ñu ko wax sëñ Abdou Salaam borom tegtal ak jàmm nekk sama wet nga xam ne man su may dox sax bañ ne ma foo foo foo foo jëm su ma leen kër sëñ ba rek tellement que nit ñi duñ jàpp na foofu laa jëm keroog waxtaan naa ci ak président dégg ko téléphone sax nit du ko def ba koy gis mais tey mu nangu ñëw gunge ma dooleel ma ndax jàppe ma doom mu kawe cër boobu kawe sama njort lool waaye ma lay wax sëñ bi yaakaar bi nga am ci man bu ko fit dee mayee du tas bu ko ngor dee may du bu ko jom dee may du maa ngi lay sant bu baax di sant sama kilifa yi fi teew yëpp maa ngi gis euh, sama wëlërëy papa yi toog vraiment seen teewaay kawe na sama njort lool. di wax nag fa ñu jógee xam nga ñun dañoo mës a nekk nit ñu am engagement ak gëm-gëm ba tax na man damay wax ne euh, je suis né leader te loolu ñi ma xam dëgg xam nañ ko. parce que xam nga souvent dafa am François Sirpaz ou bien Lucien Malson dafa waxoon ne on n'est pas leader on le devient non non on n'est pas homme on le devient loolu la waxoon. ñu bari di sukkandiku ci loolu nag ba tax ñu naan on n'est pas leader on le devient man nag dama jàpp ne déjà maintenant maintenant qu'on devient leader foofu la problème mu Sénégalais yi euh, nekk. parce qu'on devient leader non pas par principe mais par circonstance ou bien par la volonté des autres. man nag su ma nee je suis leader c'est par principe ma judduwaale ko xam lan mooy leadership ak lan naka la mën a sauver suñu waa kër ba génn ci mbedd mi sauver waa Ndiépoune Fall ba law ba dem Toubatoul sauver Toubatoul wala sauver Sénégal et je suis citoyen du monde mais pas un citoyen du pays kon ngeen bu ngeen déggee nasaraan tuuti li nga xam ne Laudator avancement ful bi taxu koo jóg la ko tax a jóg mooy poosam rek ba jusqu'à ka mu àndal bu daanoo wala mu xooli leneen man tax nag loolu man nag loolu laa bañ mas a bañ te ba jusqu'à présent ci loolu laay dee ndax damaa gëm sama bopp te yàlla sax loolu la wax yàlla bañul nit ku gëm boppam nit da gëm sa bopp bala ñu laa gëm ci loolu laa nekk ci la waa doon sa réew nekk looloo ma dugal ci parti Teranga Sénégal ndax président vice président moom mu njëkk a wax na assan dama la fan ndax da gëm sa bopp ak bëgg nit ku gëm boppam di la wax kontaan naa bu baax ci ni nga ma assisté yu ñuy miinante yàggut waaye gis na avancement yi nga def ci man bu ko defee yàlla suñu borom dafa ne nit dafa war a gëm boppam balaa ñu koy gëm ndax daa mel même yonent bi sax suñu borom dane amana rasul mi ma unzila ilayhi min rabbihi nee na yonent bi dafa gëm boppam gëm li ma wàccee ci moom gëm ne yonent la ba pare ko wax ne wal muminuuna kullun amana billahi ñun ñëpp ñu soog koo gëm kon nit ñi bu ñu la gëmee te gëmoo sa bopp du sotti ci loolu laa nekk ci laay woo bépp jeune Sénégal fii ci loolu laa lay woo nga gëm sa bopp kër gi nga nekk bu demee mu dee ñaari kër la nga mën na yaa war a loolu kër googu dëkk ba nga na yow yaa ko war a sauver ba ku la ci fekk fekk la ci tey loolu moo waral lii tey beneen bi nag mooy li waral tey ndaje tey bi muy euh, nee nañ man maay le plus jeune coordonnateur national du pays cër bi nag rëy na rëyul rëy na ndax ay responsabilité la rëyul ndax ci ginnaaw ki ma bootu kooku ñaay la te dañuy wax ne boo waree ci ñay boo wàccee loo waraat dafay tuuti il a parlé tout à l'heure de docteur Abdoulaye Niang docteur xamu man déplacé ma sax yombul kenn ci waa ñi ma bokkal mouvement bi dana ma yow fa la docteur jaar ma envoyé ko parcours docteur indéguma engagement bi mu ne ma nañu am foofu d'accord naa ma ne ko di dégg ci bari moroom ndax xam nga Sénégal léegi waxkat dañu dañoo bari da ngay génn ñaari topp la wala nga dem def dara fee rek xëy publier ko ñu naan lam fi def lam fi def lam fi def xam nga dafay wax ne ce qui fait plastronner la chèvre a plus que rempli la panse de la vache alors qu'elle reste calme maanaam tubaab nee lii bay lekk bay tëpp tëppi nag lekk na lu ko rëy te waxul li ma bëgg a wax foofu mooy le parcours d'excellence bi nga xamante ni docteur Abdoulaye Niane moom la def xajul fii et engagement bi mu am ci Sénégal tout à l'heure il a parlé de xam nga euh, ENA moom yaakaar naa mooy mooy mooy moo nekk ñëpp foofu la ñu bëgg a dem dama wax ne euh, am liggéey yu ndey taxul dugg ENA waaye tamit euh, sa ndey boo ko liggéeyul doo fa dugg moom ba mu fay dugg ñu tànn ay maire moom ci biir maire yooyu le premier ministre actuel premier ministre Ousmane Sonko ci la bokk moom moo jël raaw gàddu ko ci kaw ñëpp maa ngi vidéo boo xam ne premier ministre moo doon wax lu mel noonu pourtant ba mu ko defee mënoon nañ ne yem naa fa raw weesu naa ñëpp mais mu ne déedéet pour sauver Sénégal damay génn jàngiwaat génn jàngiwaat dem mi ngam amaat fa ay lijaasa ñibbisiwaat demaat UG ba continuer di jàng man sax damaa wax ne parfois mu ne ko xanaa bi nga ñëwaatee Sénégal danga ne i am na lu ma fàtte woon demaat demaat UGB ngir defaat fa doctorat ba tey jii mu nekk di servir wala te université Alioune Diop Bambey te loolu du ko du ko mootulee waxtaan du ko mootulee waxtaan beneen bi docteur président wax sànq muy li mu def ci BNDE BNDE toll na jamono boo xam ne ñëpp ko doon daw de question régime en place ou bien non non dañu ko doon daw parce que BN2 dafa nekkoon presque ci fight banque buy am ay millions ay 500 million ci bénéfice banque boobu taxawatul pourtant un an et demi ay milliards la fa bàyyi ba tey waxu ko kon kooku yaakaar na bu fekkee Sénégal moo la tax a jóg bu fekkee man sama poste taxu sama poste rek maa jóg Sénégal moo ma tax a jóg bu fekkee ñun ndaw ñi Sénégal moo ñu tax a jóg kooku mënuñu ko fee jéggi te loolu nag dafa baaxoon ma ko doon leeral fii ci mbooloo mi ñu xam ko. ba tax na doon sa réew bi nga xamante ni tamit dañ ko créé mu nekkoon mouvement social di dox ci lu defar réew mi ca tuubaatu moom mu yëg loolu doon dox ci social moom tamit ca département de Mbacké ak li ko wër mu gis loolu au niveau des réseaux sociaux mu ne ma Assane la ngay def tuubaatu la am naa yéene nga fësal ko parti parce que man tamit ci loolu laa nekk loolu moo taxaw ma taxawal parti Teranga Sénégal kon boo ñëwee yow ak ñi nga ànd ak ñi nga bokkal ay gëm-gëm te leer na ma ne Sénégal bari ngeen fi ñëw fi bokkal gëm-gëm ci jàpp ne liy doxal seen réew seen loxo du ci jóg parce que dama laa bëgg woo ci loolu ngir ñu ànd ci liggéey moo xam ne xaw ma nu koy wax tëggum dund ak semaine ni ñu koy waxee xaw ma nu koy waxee noonu n'est-ce pas waaw kay wokk gestu la moo xam ne nag yàlla moom euh, parfois da ngay tracer sa yoon waaye yàlla mooy seetaan daal ndax yoon bi ngistal moo la tax a jóg wala moo la tax a jóg moom su ma doon doonoon kuy ku dara yëngal man xam li ma wax sànq boo waree ci ñay ba wàcc ko dara du la du la du rëy ci géew man lu dul ngor ak diine mënoo ma ko jaay ba saf ma te loolu mënuma romb samay kilifa di ko xool ci keneen kon leneen lañ ma mën a jaay ba mu des loolu moo tax docteur bi mu ko gëstoo ba xam ne ku am ngor la ku am diine la aussi docteur ku am parcours la te ku engagé pour le Sénégal la man a ah kii mënuma ko fee jéggi loolu moo waral suñu engagement tey bi beneen bi nag dañuy wax ci mënuñu bañ a wax ci actualité situation du pays fi réew mi tool parce que réew mi moo ñu tax a jóg ku ne xam ne ni jamono ji buñ noon réew mi nit ku feebar la dañ naan woppus mag la yor ndax mag mu feebar yaakaar naa foo laam ci yaram wi day metti ba tax na réew mi ci jafe-jafe yooyu mu nekk dafa am yu ci gën a flagrant yoo xam ne tey bu fekkoon président docteur Abdoulaye Niane moo nekk pale dama naan ko fii ngay njëkk a dut sa baaraam muy suñu moroom yi nga xam ne ñu ngi jël gaal yi dem ci mbëkk mi daf ma choqué daf ma touché parce que sama su ma xoolee samay moroom rek a koy def may profité di jaale famille bi ñu ci loru ñi nga xam ne ñoo fi jógee tamit yàlla xaarale na àjjana waaye je crois que il faut ñu def la diagnostic de la situation man jàpp naa ni presque 4 mois wala ay weer ci ginnaaw barina ci ñi dem si géej gi ñoo doon fees oto yi di campagne ay weer ci ginnaaw bari na ñu des ci géej gi ñoo doon voté di sécuriser vote ay weer ci ginnaaw bari na ci des ci géej gi ñoo xamante ni ba ñu proclamer les résultat ñoo doon jubilé tey ñu teg ci tuuti ñu continé di jëlaat gaal yi lan moo ko waral parce depuis lors ils n'entrevoient aucun changement qualitatif de leurs conditions de vie te loolu yaakaar naa lu palpable la ñun ñëpp gis nañ ko ba tax na man damaa jàpp ne jamono ji fi réew mi toll fi ñu président woo woo ci bépp jeune mooy un engagement participatif boo boo xam ne man dama jàpp ne ki nga xamante ni moo ànd ak pouvoir walla mu nekk ci pouvoir warul mën a gëmm wala rëy jàpp ko ba mu nangu wax dëgg wala mu nangu dëgg dëgg bi mooy lan mesure yi nga xamante ni moom la régime en place tegagul ci wàllu woowu mesure yooyu dafa échoué loolu nit ku ñimee dëgg da koy wax amul pouvoir wala nga nekk ci pouvoir ci beneen côté aussi ma jàpp ne waroon nekk ci opposition Sénégal ñor la tax nga ne damay courage samay bara ndax faluñu ma wala nga ne dangaa soxor ñu fi nekk sax yàlla lu bon tey yàlla na gën a bon kooku Sénégal taxu koo jóg kon jamono ji dama yaakaar ne fi Sénégal toll mooy vision participative ku nekk indi sax xam-xam sax xalaat parce que man sax damaa wax ne est-ce que du yàlla moo bëgg a natt parce que ñu naan damaa bëgg Sénégal damaa bëgg Sénégal bari na ma ne est-ce du yàlla moo bëgg a natt bëgg-bëggu nit ñi classé ko ca gën a bëgg Sénégal ba ko ci gën a mujj euh, bëgg bi ko ci gën a suufe ndax yàlla nee na am na foo xam ne bu ñu fa tollee dinaa leen classé li tax ma wax loolu mooy yonent bi moo ne man raa minkum munkaran fal yuqayyihu bi yadihi fa in lam yastatix fa bi lisaanihi fa in lam yastatix fa bi qalbihi wa lizaaraka adxaful imaan yi nee na képp ku gis lu bon ci yéen na ko jiima dindi ak loxoom maanaam kàttanam bu ko gisul bu ko mënul na ko dindi ak làmmiñam maanaam kàddoom bu ko mënatul nag mënu ko ci ñaar yooyu yëpp na fas yéene ci xolam loolu dañ ku ne xam na ne mbëkk mbëkk mi lu bon la ci senegal kon ma jàpp ne waaye yéen bi mu waxee loolu sax dafa ne waaye ki nga xam ne moo ko yéene ci xolam noppi rek na pat naan yàlla na fi jógee nañ jàpp ne kooku moo gën a tuuti ngëm-ngëm kon ma jàpp ne fi Sénégal toll nii